leen booral. Golden Fast Food Golden Fast Food defaat na comeback bu am doole nekk fii ci diwaanu ngay ngay boo rombee tuuti jàkk ji xoolal sa droite rek di nga gis Golden Fast Food Golden Fast Food ñëwaat tax doole ci fast food ci dibiteri yemul foofu lépp luy traiteur ci wàllu xew jox ko moom mu gerel la ko. Golden Fast Food dina ñëw ci poulet braisé poisson braisé vermicelle poulet. couscous poulet suppu yeel sax pour yow mi tooy danga ko fay am fataaya fataay complet sandwich poulet sandwich viande sandwich foie hamburger shawarma norvégienne pizza bo démé foofu ci golden fast food dang ko fay am wàllu jus nag bo oh, benen affaire la daf lay proposer ay variété yu amul fenn variété yi bari na te boo si mos dolli sax jus meun nañ ko mos doli bouté jus bu 33 centilitres mu ngi jar 300 bu 1 litre ba ngi 1500 pour sa cérémonie mariage wala ngenté golden fast food dina la defaral ay beñi mariage bi ñu amuse bouche lépp loo soxla dal bul hésiter demal Golden Fast Food mënu nag yemul ci liñ la limal rek liñ la waxul sax moo daxati kon dawal gaaw contacte leen ci 76 795 33 10 wala 77 161 70 22 bi di Ndeye Séni gaawal gaaw def say commande am na possibilité de livraison à domicile avec Golden Fast Food sa coone jeex na jaaxle fooy reere amatul wooteel def sa commande ñu indil la ko ci ni mu gën a gaawee tàng neex bon appétit